golo taxaw aju sa kaw golo lu yàgg-yàgg day wàcc waaw Macky Sall nag day yaakaar ne mi ci kaw garab gi chaque jour mais dina wàcc ci suuf ah. mais munul nit ki bu munul day xam ne munul Macky mënta diriger dëkk bi ah. yàgg nañ ko wax ah, ah. non est-ce que jar ay téye bànqaat damay bañ ñu ne Pastef laa bokk wala dara ah waaw mais loolu demee nii tamit ah ab dekk yow nga jël lépp munu poliser lépp Euh, situation crise bi nit ñi nekk yow amoo sax war a xalaat xanaa ko yeewul sax bu ñu ko waxee dëkk bi nii la war a demee yow war nga xool les priorités de ce pays mais doo ko def yaa ngi chaque jour eh, eh, di créer ñu nax nga naan da ngay inauguré dara lu parewul luñ ko inauguré moom day wër li muy inauguré dara baaxu ci ak avion bu mu jënd avion bi loo wax ah, avion un milliard un milliard un milliard égal égal mille millions je mu jënd 60. waaw yow nga jël ñaata milliards jënd avion dëkk des jeunes yoo xam ne avec 30 000 mën nañoo génn ci affaire imaginer la xaalis ba bu ko jëloon di joxe par subvention par groupement. Ah. mais yow rien comprendre ko di nekk mooy la ma wax rek moom daa yaakaar ne chaque jour àdduna ci kaw la ak alors que chaque jour la mbir mi ci suuf la la terre. Ah ah yi àlla xam na bu jële yoon bi mu jël nii ne day jéem a faagal Ousmane Sonko di fexe nu bokkule yi wallahi azim moom ci boppam ah du ko fekkee incha allah oui oui déjà l'émetteur du message c'est le mouvement pour la défense de la démocratie qui a été créé lors des manifestations de passées ce qui a euh, euh cette création c'est en fait la mise en place de d'un cadre de concertation qui permettrait aux Sénégalais acteurs de la société civile, membres de partis politiques, personnes influentes, de pouvoir dire au président Macky Sall stop. Cette euh, ruée vers la violence, cette manière de faire inédite dans la sphère politique du Sénégal ne marchera pas. Il a eu à le savoir, à le découvrir brutalement, malheureusement, face aux Sénégalais, face à, à, à, qui il a voulu euh, faire montre de violence, qu'il a voulu trahir, parce qu'en fait, il a, ayant trahi son serment, euh, face à Ousmane Sonko qui, chaque jour, émettait des dossiers pour lesquels il n'avait aucune forme de réponse, acceptable que les Sénégalais pouvaient entendre. Il a voulu, il a, il a voulu le mettre en prison. Les Sénégalais lui ont dit non. Et face à cela, on a conçu pour la défense de la démocratie, pour dire notre non du président Macky Sall, aux dérives autoritaires et C'est la raison pour laquelle ce mouvement-là a été mis en place. Aujourd'hui, on a deux messages principaux à lui faire passer. Le premier, c'est une personne. qu'il a, toujours, en, prison, conformément aux engagements qu'il avait pris devant le calife euh, des Mourites et qui respecte les 10 autres points du mémorandum, participer aux élections libres transparentes et démocratiques. président Macky Sall lu mu ko jaral du ñu ko jaral lu ko jaral président Macky Sall lu mu ko jaral danañ ko jaral lu ko faaw mu bàyyi huit personnes yi mu téye parce que nag quoi qu'on puisse dafa dafa trahir chefs religieux yi li mu waxoon sëñ Mountakha defu ko léegi nag il a devant lui une jeunesse consciente et très engagée lu mu ko jaral danañu ko jaral fii ba 2024 damaa bëgg it jeunesse yi nañ yeewu baax a baax a baax élection locale yi ñu jëm du question ay ñu naan ay affaire neetaan affaire déet élection locale ay élection lañ jeunes yi bu ñu xoolee Macky Sall gagné élection locale yi dana briguer troisième mandat buñ ko nangu nañ xeexal Macky Sall. président Macky Sall mi naan la ci pale bi peuple bi mooy souverain président mag Sall dafa war kilifa diine yi li mu lay waxoon defu ko parce que sëñ Mountakha ba réew mi naree daree naree tàkk président Macky Sall ñàkk ak nguuram mu ñàkk pe xamul mi def dafa daw dem sëriñ si sëriñ ñëw ñaan ñu njëkk bi ñu ñaane njëkk ne ko bàyyi leen manifestation dañoo yi nit ñi li ngeen bëgg ñëw leen ngeen wax ñu ko sëñ Mountakha ak kilifa yi diine ñaan ko président Macky Sall pour ñu may ñu ko lañ waxoon na moom dara la ci respecté def ci dara Macky Sall il a trahi nag li ñu dem mooy lan a une jeunesse en face lui duñ ko bàyyi mu sedd lépp lu mu ko jaral danañu ko jaral président Macky Sall dana bàyyi huit personnes yi mu téye ñu nekk Ziguinchor ak kaar yi nekk Diourbel dina bàyyi aussi kilifa yaana maar président Macky Sall élection locale yi yéen seen yéen laay waxal élection locale yi na am fulla am fayda bis ngeen xoolee ba mu gagné élection président Macky Sall troisième mandat lay ba léegi amul benn jéego boo dox na ci sëriñ si ñoo ñaanoon xale ñu bàyyi woon li nga xam ne mooy ñu libérer li nga xam ne mais di boobu ak président dafa ci réaction léegi lan mooy gis-gis ci loolu ñoom am détermination mooy xale yi ñu teg loxo moo waral tey marché bi mooy MDDE mooy li nga xamante ne mooy sëñ sëñ Muntaxa ak yeneen kilifa diine yi waxoon nañu xale yi ñu tëral li nga xamante ne mooy manifestant yi ñu teg ko suuf di waxtaan li nga xam ne mooy président Macky Sall ñu libéré li nga xam ne mooy xale yooyu ñuy denc te yéen ban yëg-yëg ngeen ci taxawaay ci loolu. waaw euh, yëg-yëg bi si am mooy dañu war a génn euh, accord bi nga xam ne état du Sénégal le gouvernement du Sénégal euh, engagement bu mu jël vis-à-vis des chefs religieux yi nga xam ne dañu ñaanoon ñu juboo bàyyi teg lépp ci suuf comme loolu nag gisuñu ko état du Sénégal doxee ko loolu tax ñu génn fàttali euh, askan wi fàttali itam guide religieux yooyu defoon intervention bi ne ba tey am na ay prisonniers yoo xam ne depuis mois de mars ñu ngi ci kaso bi te xamuñu lu tax ñu téye leen fa waaw loolu foofu ñu nekk noonu du seen place ndax ñoom euh, événement bi taxoon ñuy xeex passé na weesu na na ñu ñëpp lu tax ñooñu ñu téye leen amul sens état dafa war a respecter parole am la parole donnée daf ko war a respecter dafa dafa dafa dafa état dafa war a respecter parole am vis-à-vis des chefs religieux et vis-à-vis de nous les citoyens ñun dañu war a naw suñu état mais léegi fii kenn nawatul état parce que état lu mu wax du ko def te li muy def du ko wax on nous met toujours devant le fait accompli pour ay décision de décret pour ay décision de dindi fi ay euh, premier ministre ak yeneen ak yeneen mais tey daal suñu taxawaay mooy euh, fàttali état bi promesse bi mu defoon te lii waruñ si woon yegg ak état bi état bi def leen waroon libéré ñun ñu ànd ci ay état bi félicité état xam ne état respecté na li mu waxoon mais ñi ngi ñaawlu li état téye euh, sunu frère sunu doom sunu jarbaat yooyu ba ñun ñu am toute une journée à venir passer la journée ici pour réclamer leur libération lii yëpp waroon nañu mënoon na ñàkk. ku nekk si ñun mënoon na jàll si beneen liggéey bu dul toog di réclamer lu nga xam ne euh, ñun bi ñu bi ñuy bi ñuy ak bi ñuy accepté accord boobu dañu defe ne woon c'était déjà acquis ñu ngi koy ñaawlu trop de la part de l'État na bàyyi ñii ñu génn ils sont au nombre de huit na leen bàyyi ñu génn du ko wàññi dara ñooñu mënuñu yàq ci dëkk bi dara ñu def dara loo xam ne dafay feeñ même pour benn grain de sable donc nañ leen bàyyi ñu génn ñëpp am jàmm on passe à autre chose voilà. loolu rek sëñ bi boobu président mu ngi activité am nag ci ay tournée waaw mi ngi ci ay tournée ñun ñu ngi suñu activité loolu la mi ngi ci activité ñun tamit ñu si suñu activité tey ñu ngi nii am activité on a un programme avec notre parti voilà ku nekk na nga nangu li sa morom di déroulé nga bàyyi ko mu deru déroulé démocratiquement loyalement. dans la fraternité vraiment ñun loolu la ñuy laaj c'est tout voilà tur bi Mamy Dieng Lo la coordonnatrice mouvement jigéenu Pastef Dakar c'est moi qui vous remercie. jërëjëf. ñu ngi lay fay. lan la tur bi. Yacine la ah Yacine. boo ko tey ñëw ci li nga xam ne mooy manifestation bi MDD bi nga xam ne ah, ñu ngi koy defal fi nga xamante ne mooy ah, place de de place de l'Obélisque. fu ma bàyyeekoo maa ngi bàyyeekoo Liberté 5 laa bàyyeekoo waaw ñëw rek pour soutenir suñu patriote yi. waaw ah, loolu moom la da nga ñëw soutenir xale yi nga xamante ne dañ leen a jàpp mu huit personnes ci prison yi. boobu ak léegi di ay manifestations fi jàll. ba léegi président Macky li nga xamante ne tey mooy seen wax sëriñ si ñaan nañ ko ñaanoon li nga xamante ne mooy xale yi nekkoon ci mbirum manifestation yi pour ñu tëral affaire yi ba lépp jeex mais boobu la gis nañ amul benn réaction bi président def na ko ci yéen tey seen gis-gis tey si lan loolu. waaw loolu moo ñu a tax a jóg sax booy xool parce xale yi bi leen tëyeeg léegi mi ngi bëgg a yàgg te wax dëgg yàlla gisuñu lu ñu war a def ci k foofu du seen loolu moo ñu gën a metti looloo suñu looloo ñu gën a yëkkati ak suñu président bu baax bi bu ñaawul bi ñu koy soutenir si muy président Ousmane ko looloo ñu tax a jóg waaw. waaw nañu li xam ne mooy président Macky Sall mu si ay activité mu ngi si ay tournée boobu ba léegi yan ban yéen ngeen ci am actuellement dafa mel ni ñu ci campagne la nekk comme si campagne la nekk. waaw moom moom ngi ci campagne bu nee ci campagne am ñu ne ñu ne ci suñu campagne waaw mi ngi ci campagne ñu ñu ngi suñu campagne. waaw ndax xale ñu tëj dugal ci kaso ya foofu du seen place dañoo war a génn ndax sàcc ñu fenuñu dégg nga jaay ñu dorog toxuñu yàmbaa lañ doon soutenir seen président kon lu ñu def ayut bañ leen war a mën a dugal ci kaso bi du yoon loolu moo ñu indi c'est ça waaw jàpp seen président Ousmane Sonko dina mën a bokk si élection 2024 loolu la ñu bëgg incha allah day bokk sax incha allah loolu la ñu kon du sedd moo suñu yéene waaw loolu daal mooy suñu yéene mu bokk ci allah. ñu leen di jaajëfal. merci beaucoup merci. sànq ñëw laaj ko nan nga ko def nan lii lan nga ko defaree ak lan lañ lan nga ci def ak lan nga soxla ci moyen ak ñaara temps nga soxla nga jël ko encadré ko mettre ko dans les dans les très dans les très bonnes conditions mu defaral la loolu après nga utiliser xam-xamu kooku def ci des formations pour réew mi mën a dox parce que réew noonu lañ koy créé réew ma wax ma leen ma dafa am am lu ma métti mooy sama mbokk Saalum Saalum yi parce que Kaolack dafa waroon nekk carrefour bi nga xam ne waxuma la Sénégal mais adduna dañ ciy jëriñu parce que Kaolack am na ay ressources yoo xam ne buñ ko utiliser ni ñu ko war a utiliser ngir askan wi rek Kaolack day développé mais Kaolack boo ko demee tey lu leen njëkk teeru benn nee ma mbalit bi ñaar nee ma xarit gu bon ñett nee ma ndox muy tuuru ñeent nee ma ressources yu ñu utiliser wul normal boo xoolee tey gouverneur gouverneur Kaolack mu ngi jëm a menacé nit ñi di intimider nit ñi naan fekk maa ngi fi marche du am pour moom Kaolack dañ ko ko délégué wala papa ma ko moom wala yaay ma ko moom wala quoi qu'il soit dafa nekk senegal bi nga xam ne ñëpp a ko bokk boo tax ñu naan Sénégal pays de la Teranga Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye Diallo Zor firndeel na ko parce que Abdoulaye Diallo bi mu ñëwee bi ñu ko laajee interview bi dane li ma njëkkee intéressé mooy 2019 bi may ñëw Sénégal bi ma ñëw si aéroport bi may kan mais bi ma ñëwee li ma njëkkee wax bonjour naka nga def dalal ma ba pare doog maa laaj passeport mu ne ma boo ñibbi su ma delloo France su ma àccee si avion bi lu ñu may wax bonjour passeport mu xam ne kon ñaari bokkul fii pays de la Teranga la guerre amu fi terroriste amu fi kon nañ bàyyi loolu parce gis nga Sénégal ngay gis benn kaasu ataaya wala benn kaasu café cinq Baye Fall di ko bokk ku guur ko sa morom Sénégal ngay gis benn potu cere ñeenti mbër gàll bokk ko Sénégal ngay gis benn almet kër gi taal aal kër gi mu taal aal kër gi mu taal te pourtant juróomi dërëm lay mais da ne moo nekk biir Sénégal nañ ba ngeen tas loolu Macky Sall na mënul defar Sénégal na fi bàyyi union bi fi fekk booloo gi fi fekk mais Kaolack ngir yàlla nañ nañ yeewu képp ku am crise euh, euh, politique muy 2000 2000 euh, ba léegi képp ku am crise politique boo bëggee yeewuwaat nax sa bopp dekkil sa bopp fan ngay dem Kaolack jël nit ñi yem leen ci ay car rapide yem leen ci ay njegeñaay ku si daanu ñaata ñun nga naa a lor ñi nga xam ne ñoo tax ñu ñëw tey nag si laay wax mooy dañoo nekk ay nit ñi nga xam ne dañoo jugoon ngir geste bu noble geste bu am fayda geste bu boo xam ne vrai patriote moo koy def mooy jug ngir xeex ngir sa réew tegu si dans les si dans les très bonnes conditions ñu jël leen tëj leen ci kaso bi am na ñoo xam ne ay élèves lañu dañuy def bac am na ñoo xam ne ay élèves lañu dañuy def BFM am na ñoo xam ne ay soutien de famille lañu dañoo yor ay jabar yor ay doom ngir leen ci kaso bi ndax lan intérêt politique intérêt wu benn nit intérêt wu ñaari nit loolu la Sénégal war a bàyyi di def intérêt communal intérêt bu ñëpp di bokk loolu la ñu war a jëm Sénégal émergent mun na nekk parce que Sénégal bu am zircon Sénégal bu am gaz Sénégal bu am pétrole Sénégal bu am fer Sénégal bu am lépp amul lenn valeur valeur li gën a li gën a li gën a jafe ci àdduna mooy valeur Sénégal yàlla dañu ko may boo yërëmul ñi nga jiite doo leen jiite réew ñaar moo koy yor ñaar rek mu naa la ko si tënkal muy ak yërmande ndax nit ki soo amee yërmande ci moom da koy jàppale nit ki boo doxalee dëgg kenn di wax ak yow dañuy gis nga Macky Sall bu doxaloon dëgg wala mu am yërmande ci nit ñi li fi xew ñëpp du fi am 14 morts c'est trop il ne faut pas cesser les gens li ñuy jéem a intimider nit ñi bu leen ci kenn fekk marche pacifique lañ ñu wax nañ ñëw déglu le mu wax ñu li ñuy wax ñu jëlee ci xam-xam te xool lan la ñuy def bu ñu demee ba ñu distribuer ko foofu loolu moo am solo vive les patriotes vive le Sénégal. te léeg bu. dara amee jëye nar a am ñun dañuy yëngu ci prévention dañuy dañuy yëngu tamit ci réponse actuellement dañ nekk ci phase préventive bi comme que manifestation la on ne sait jamais mën na dégénérer comme mën na bañ a dégénérer mu bañ a dégénérer nag ñun moom la ñuy ñaan suñu borom mais tey jii am nañu ñaari équipe de veille yoo xamante ne ñu ngi fi bu naree déborder rek ñoom dinañ def ni daan def daal di daal di intervenir dimbali blessé yi fekkente ne amul aussi ñiy lemaat suñuy kaake dem ñu bi bañ yóbbu ko maanaam suñu yaakaar suñu yaakaar Cheikh Khadim si lii si dëgg la doon xeex ba tax ñu yóbbu ko Gabon mu ñëwaat ñu teg ko résidence surveillée Thiène yóbbu ko Njaareem ba nu muy matalee dem Touba donc xeex boobu nag idéologie boobu ba tey jii moom moo nekk suñu biir xol yi moom moo nekk suñu biir xol yi suñu mag yëpp loolu lañ doon xeex injustice di xeex dëgg moom mii loolu lay porté moo tax ñun ñu ànd ak moom ñun ànd ñoo moom ndax daf ñoo jox dara ànd ñoo moom ndax lenn lañu yaakaar ci moom dañoo ànd ak moom ngir réew mi tegu ci yoon ngir réew mi tegu ci dëgg moo tax waa Pastef Touba ñoo ngi nii ñëw nañ waa Pastef Touba yëpp a ngi nii ñëw nañu ñëw nañu Pastef Touba ñëw nañu ngir ñëw si xeex bi waaw Ousmane Sonko ca kaw sa kanam yàlla na ko suñu borom gën a sàmm yàlla na ko suñu borom gën a sàmm si bar xas da sëñ Touba yëpp voilà comme moom moo fas. Touba la ñu ñoom tamit.